ci net bi TV Sénégal ngeen di euh, taataane euh, xibaar yi mbokk yi salaamaaleykum am nañu mbégte bu baax a baax dëgtal leen euh, xibaar yi comme ni ñu koy baaxoo di tënk ci kàllaama kocc la ñu koy daal di tënk li gën a fës dañu koy doo rek Mimi Touré mi yëkkati ay kaddu daal di koy xamle ci ay kaddu yu mu yëkkati woon ne waa PDS ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di APR dañoo teg ab dil ci lu ñeel bi lépp dialogue moo ko jural ay menaces kaddu yi Mimi Touré dañ leen ko gën a yaatalal. ci biir euh, xibaar yi euh, buñ ci noppee daañ ci toftal Ousmane Sonko mi nga xam ne daal dinay euh, génn Sénégal utali ca réewum Gambie skal fa def ak lu mën a xew Ousmane Sonko yëkkati na ay kàddu di koy xamle waaye itam met ni kuy rek yónnee ab bataaxal le doyen des juges ma Maham Diallo Euh, plainte bi euh, Sitorndo doon annoncé jëmale ko ci Gabrielle Kane ak euh, Dame Mbodj mujjee naa rek dal di jëmale yi fee ci kanamu yoon ab avocat dal dinay déposé ni ki tey yooyu les plainte ana rek lan moo ci xew dañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi buñ ci noppee dañu waxtaanee lu ñeel mbirum Hannibal Djim ginnaaw procès bi nga xamante ne ni rek dal dinañu koy taxawal maanaam retour au parquet bi nga xam ne Hannibal Djim dal dina koy amaat la ca wàccee comme ay xibaar janook àttekat ya dañ ko gën a xamle ci biir euh, xibaar yi ñu jeexale ko ak mbirum tàggat yaram euh, Boulaye Dia dal dinañu koy rek tabb euh, meilleur joueur ci mois wu avril bi ana rek ñan ñoo ko tabb ak lu tax ñu daal di koy tabb dañ leen ko gën a yaatal ci biir xibaar yi mbokki xarit li mooy li gën a fës ci ponk yi taxelu leen bàkk bi jàll ñu faram fàcce ko salaam salaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi noonu la ñu koy dooree Faram Facceek lu ñeel mbirum politique ak Mimi Touré moom nag daal dina yàbbi ci situation réew mi rawatina situation ba nga xam ne moom ca nekk di ko dund mu ne nag mi ngi informé presse national ak international bi que depuis mu exposé détail yu deal politique bi nga xam ne moom moo dox diggante président Macky Sall ak ay aliyem ca PDS euh, ci lu wàllum euh, boobu lépp euh, information mu joxe ko nag ci ab euh, pseudo dialogue co organisé boo xam ne daal dinay recevoir ci téléphone am ay menaces ak ay saaga yoo xamante ne ni du ko tere rek daal di yàbbi ci lu ñeel boobu lépp dil mu ne nag dafay rek daal di xamal sénégalais yi ci sede boo xam ne il faut ñëpp yëg ko waaye du ko tax a daw yotaax daf koy rek renforcer détermination ngir rek mu xeex li nga xamante ne nii moom moo di régression euh, démocratique euh, régression euh, démocratie bi ci réewum Sénégal mu ne nag dafa rek daal di bëgg xamal le président de la république Macky Sall ak aliem di waa PDS que fi ne lu ko dal ñoom ñooy responsable yi ndaxte ay menaces ci ñoom la rek dal di jóge mu ne nag bu saisiré occasion ngir dal di oote appel ñëpp ñi nga xam ne ay démocrate lañ ci réewum Sénégal ngir ñu rek dal di mobiliser wu défendre li nga xam ne moom moo di constitution réew mi ngir Sénégal mën a am liberté démocratie wu réew mi dal di mën a am liberté ñu dal di addu wax ci leneen mu di Ousmane Sonko mi nga xam ne dal dinay génn Sénégal ni ki démb ba dal di rek euh, wuti ca frontière yu Gambie moom Ousmane sonk nag ab bataaxal la daal di yëkkati ngir xam la rek ana moo tax mu daal di génn Sénégal ginnaaw bu muy dem ca Ziguinchor ca Gambie la ko rek daal di jaare mu ne ñaari at yoo xamante ne nii rek mënul génn Sénégal li ko waral bokk na ci yoon gu ko rek daal di tënk sous contrôle judiciaire gu tere mu daal di dem ay avocat am ñaan nañu plusieurs fois ngir ñu rek daal teggi boobu lépp contrôle joxaat ko ay passeport am ngir mu mën a rek daal di amal ay voyage ginaaw ginnaaw bu muy dem ca Ziguinchor nag mu daal di jaare ji ca Gambie noonu la ñu ko fësale ci ay image mu ne nag sous contrôle euh, judiciaire bi daal dinay euh, jeex bu yàgg depuis que instruction ba daal di jeex moo tax rek mu dal di dem yoonam mu mel nii daal dinay mujjee fuppu fippu njiitul Pastef ci tëj gi ñu ko tëj waaye itam di ko lankal mu génn réew mi di euh, Sénégal Babacar Touré bu Kéwoulo TV moom Babacar nag dañu ko rek dal di teg loxo lu tollook juróom benni jàpp juróom ñaari fan yi démb ci guddi la ñu ko dal di évacuer ci hôpital principal bu Ndakaaru ci urgence ginnaaw si loolu nag gis nañu ay mbokkam dal di génn rek mel ni kuy dénoncer injustice bu ñu teg ci kawam ginnaaw bu mu amee woon retour au parquet te avocat doon sàkku ñu dal di koy bàyyi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ay nattangom yo muy liggéeyandool ci Kéwoulo TV jàpp ne mbir mi ci boppam politique moo ko lal ndax bëgg ko rek daal di noppiloo euh, ba ñu ko évacuer ci l'hôpital principal ni ki tey la xëy rek daal di joxe ab xibaar ne ki la di Babacar Touré daal dinañu koy mujjee bàyyi euh, sous contrôle judiciaire euh, mu mel ni ab avocat moo ko rek daal di xamle fi ne moom Babacar Touré daal nañu koy bàyyi mu ñibbi këram leneen lu ñuy waxtaanee bokk na ci mbirum Hannibal Djim Hannibal Djim nag ñi ngi ko teg loxo ay weer ci ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci avocam di maître Moussa Sarr mu ngi joxe ay xibaar ci lu ñeel mbirum Hannibal Djim ginnaaw bu mu amatee retour au parquet te ñu rek doon xaarandi ndaxte dañ ko bàyyi ci bàyyub néggandiku am déet ba ñu ko dégloo ba pare mujjee nañu ko delloowaat ca cellule am maitre Moussa Sarr nag fi ne li mu bëgg moom moo di ñu daal di may euh, liberté provisoire ak ki nga xam ne moom moo di client wam di Hannibal Djim waaye itam euh, déglu nañu ko ci fond wu dossier boobu ni ki tey ak la ñu ko doon toppee naam bu ñu bari jàppee ne mbir mi politique moo ko rek daal di lal bu ñu fàttali ko moom Hannibal Djim ab sénégalais la boo xam ne nekkul woon Sénégal waaye lu ñeel mbirum euh, fon ak yu demee noonu ci euh, waa Pastef euh, doon na ko gérer nekkoon ku ñu ràññee lool ci googuleeg lang bu ñu fàttali ko itam ci kàddu yi Pape Alé Niang mi ngi doon wax ne xamal na ko ne sab tànk bu ko tegee Ndakaaru dañu ko jàpp naam bu fekkee ay mbokkam ñu ngi def seen kéem kattan ngir ñu daal di koy libéré lu mën a xew moom Hannibal Djim espère espoir ba nga xam ne amoon nañu ko niki tey ndax dañ ko bàyyi am déet mujjee naa rek dal di naax saay euh, ba mujjee nañu ko rek dal di delloowaat ca euh, kaso ga ñu dal di wax ci leneen loo xam ne itam lu soxal askanu Sénégal la mu di plainte yi nga xamante ne ni mu ngi mel ni tulli ak Malé Gabriel Kane ak Dambo ca ñu ngi ci rek guddi gu ba setagul li ko waral mu di ab plainte boo xamante ne ni euh, Sitor Ndour moo ko rek dal di plainte Dambo ak Gabriel Kane li ko moom moo di coowal viol li nga xam ne Ndeye Fatou am fukki at ak juróom-ñaar moom la rek daal di si Sitor Ndour euh, ñu daal di koy atte ba setal ko non coupable euh, kile di Sitor mujjee rek daal di def contre expertise ba mu jaral ko. contre offense mu jaral ko mu daal di rek ne dafay porter plainte ànd ci ak avocat di maître Boubacar Cissé ngir rek ñu daal di topp ñaar ñi nga xam te ne nii dañoo jàpp ne rek dañoo yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci kaw Sitor Ndour mu di Gabriel Kane ak publication ba nga xam ne moom la def ci page Facebook am ginnaaw bu atte bi génnee mu mel ni kuy ñaaw lu atte bi nga xam ne atte nañ ko waaye tam li yoon dogal jëmale ko ci Sitor Ndour ba ca topp di dàmboo ci mi mu ne daf ko rek diffamé waaye itam injure bu ñu ne moom dàmboo daf ko rek daal di teg ci kaw Sitor tax Sitor dal di porter plainte ñaar ñooñu euh, ba euh, mais avocat di maître Babacar Cissé tey la dal di déposer yooyu lay plainte lu mën a xew ñaar ñooñu le ndax yoon dana leen déglu ci lañu leen di toppeek fan la wanet di mujje ak i gëtam dañuy jeexalee xibaar yi ak euh, lu ñel mbirum tàggat yi yaram ak l'international sénégalais bi di Boulaye Dia ca Salernitana fa la xam xamle ne Boulaye Dia ci boppam moom mooy euh, meilleur joueur ci mois wu avril bi ñu weesu mu mel ni nag loolu am nouvelle bu neex la li wane nekk euh, moom Boulaye Dia joueur la bu ñu bàyyi xel waaye itam ci wàllum performance mi ngi ci bay waaram bu baax a baax euh, ba ci sax équipe nationale bu Sénégal bi nga xam ne ci la bokk dañu rek ràññee moom Boulaye ja li nga xam te ne ni moom moo di na muy joué waaye itam gestes yi nga xam ne mu ngi koy def ngir wane nekk carrément moom ci boppam nit la boo xam te ne nii bu am talent la mbokki xarit yi ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal jaajëfal nañ leen te di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen jataayu xibaar jaa ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm.